አላሁ አክበር አላሁ አክበር léegi gëm yàlla mooy lan mooy gëm existence am bi ci jiitu te loolu débat bu débat bu ñu résoudre bu jeex jamono yi fi philosophie di nekk ñoom igal ak Guy Descartes ak hmm. Marx ak ñooñ bi ñu fiy nekk Platon nekkoon na débat yàlla am na wala amul parce que pour euh, existence bi lan la euh, euh, doomu aadama lépp lu muy gëm cinq sens dañ ko war a mën a hmm. mën c'est-à-dire loo gisul sa bët déggoo ko sa nopp mënoo ko xenc mënoo ko ñem mënoo ko laal sentir hmm. ko loolu existé wul léegi bu loolu existé wul loolu fa ngay mën a sukkandiku pour dàq existence yàlla na yàlla amul bu yàlla amul kon imaan gi ñuy wax muy gëm yàlla amul dañuy wax na benn prof philo dafa dugg classe di jàngale benn leçon ci philosophie bi mu defee ba pare mu jox xale yi ne leen dama bëgg ngeen defal ma euh, exercice bi mais ngeen argumenté ko philosophiquement soxlawuma ci ngeen naan ma ay yàlla ne parce que man góoma existence am góoma ne yàlla am parce que man yàlla gisuma ko dégguma ko dégguma ko xeeñciwuma ko ñamu ko lambuma ko xale bi ne ko wa d'accord léegi yow euh, est ce que yow and nga ko sago yaa ngi sa xel mu ne ko ah ndax lan mu ne ko xel mi ngay sa xel mi ngay waxee anam سخل مين يبغى خيال أنا مم واجي خلاص خلاص جسني إفكتيفما حقيقة مم جسوا الخلاص خين تيو كباخم خد غنيا غلا خير لا يوم نيمو كباخم لو خير صف لامو كباخم دفن نوي دفن شد دفن تانغول دفن يكس منكوا يو إسك يانغي دوند صح منكوا على طه منكوا روجي نتيو جل دوند روجي نمل مسكوا كجس سينك سانسي بن موجي دكوري رو أنا مم وابو فيك يا رب دلاب بين دليو أنا مم أي أي كرياتيو يو خم نسينك سانسي مولني كو دكوري موسى خل جسرو أجينن أجينن الإمام ابن مان تودنا تيبري وخمي آه، الحافظ ابن ال ال ال ال الحواس خمسة ولا ستة يمونو كو ديكوفري كتاب التوحيد مو نعم. لقي سانس يمونو كو نعم. ديكوفري تيجي أدنى آه، لنك آه، فكيف يلا تيلا نك يلا جوهم على سانس يو خم نيو يان كو ديكوفري ره والله بو أمي بد جسنا يلا تكنا في يو خم نيو يان كو كاي خمي وكل شيء له آية تدل على أنه واحد واحد يلا دفنا في أي مندرجة يو نيني مم أمنا yaa ngi dégg am na dégg-dégg yu agsi ci yow yu lay convaincre ci ne yàlla am na am na yooyu yëpp yu lay wan ne it yàlla am na kenn ku gis bara xam tawxiid yi bëriwaa na suñuy misaal ci wane kàttanu yàlla ak màggaayam puissance am toujours dañuy wax ni alladi xalaqa samawati wal ard wa shamsu wal qamar wal nujum yooyu la ñuy faral di indi borom xam dañuy wax lan moo tax toujours ñoom ñuy accenté wu seeni exemple misaal ci asamaan ak suuf ñu ne awalu shay mooy shay'un zahir mooy asamaan dafa nekk lu feeñ lu ñëpp xam doo dem ci benn communauté benn nit lu mu reculer ci monde bi lu ñu am modernité modernité nga ne leen asamaan ñu ne xamuñu asamaan amul. amul kenn kuy dund ci kaw suuf ku ànd xelam ku normal. ku ràññee ku mu kallaf ku naan la xaw ma asamaan. amul ku naan la xaw ma suuf amul. gisuma ko de kon asamaan ak suuf ñëpp ko xam. beneen bi ñooy akbarul maxluqaat. mënoo gis ci bët lu gën a rëy asamaan mënoo gis ci bët lu gën a rëy suuf. lu dara rëy rëy. asamaane ko tiim lu dara rëy rëy rëy ci kaw suuf lay dox te jeexalagul suuf si feesu ko kon lu gën a rëy suuf ak asamaan amul ah. léegi ñaar yi ku ñu doyul ci nga gëm ne yàlla am na lan moo lay doy ah. mbindaafoon bi gën a rëy mu asamaan ah. yow sa bët da xool fu mu tàmbalee ba fu mu yem da ngaa judd fekk fi asamaan asamaan ñefi musul fenn musul ñu ko raax mu musul am problème moo tax ba roxa bi wax ne na ci kéemtaanu suñu borom yi muy wonee màggaayam existence am ñu war ko boo demee ci ci ci ci suuf dane dañ ko lal firage la ko tuddee bu day wax bina hmm. wa banay naa fawqakum sab'an shidaada damaa tabax seen kaw juróom-ñaar yu dëgër xam nga maçon bi bu tabaxee ne la ne la bi dëgër na sa xel day dal léegi yàlla na la dëgër na këcc sab'an yemu fa mu ne shidaadan hmm. juróom-ñaari asamaan yu dëgër këcc du yëngatu du fel moo tax borom di wax ni doo mës a dégg tremblement du ciel mais di nga hmm. dégg tremblement tremblement de terre parce que yàlla suuf waxul fenn sidaadan ah, mais ci ah. asamaan dane sidaat ah, da cee pare du yëngatu du du du du patidi alors que suuf borom bi dafa wax rek da koo lal ba pare waxul lal gu dëgër moo tax nga mën a dégg tremblement terre mais doo dégg mukk tremblement tremblement tremblement du ciel loolu ci kattan ak màggaay gi yàlla woonee boppam ci la bokk mooy kon gëm yàlla gëm existence am débat boobu jeex na c'est résolu ma furuxul min waaw gëm na yàlla ku existé la yàlla moom existé jëmm la jom ay tur ak melokaan moom dong mo prouver ci kaw sofi woné lutax lu ñu war ko jamm kenen woné mom borom ya ayyuhan nasu bi rabbikum alladhi khalaqakum wal ladhi min qablikum laallakum tattaqun mu do wara wax ni euh euh euh yàlla mi nga xamni mo len sak sak ñi len jitu ak sàkk leen sàkk leen jiitu alladi xalaq mu mu xam laalakum tattaqoon alladi jaalakum al arda gis nga firasha wa sama binaa la yow eh. binaa lu ñu tabax du yëngatu hmm. arda firaas sama binaa léegi lu ñu tabax ak lu ñu lal bokkul lu ñu lal mën nañ ko laal li mën naa yëngatu mais lu ñu tabax du yëngatu moo tax euh, hmm. léegi loolu la prouvé maa leen bind bind ñi leen jiitu euh, euh, defar asamaan wàccee ci ndox dóor ko ci suuf mu génn ay gàncax dafa prouvé bi mu paree na ngeen ma jaamu te bu léegi kon ngëm googu nga xam ni mooy nekk ci xol gi dafa am lu koy jëmmal dëgg-dëgg pour mu mën a feeñ mooy lan hmm. ba xam dañuy wax ne xol oustaz dafa mel ni éponge hmm. boo duggee ci boutique bi nga jënd benn éponge bu bees hmm. nga rangale fii ñetti siwo siwo bi bisaab moo ci nekk bii ndoxo ci nekk bi bi soow boo jëlee éponge bi dugal ko ci siwo bisaab bi soo wañee bisaab mooy génne ala kulli xaal mënoo dugal éponge ah. ci siwo bisaab wañ ko muy génnee lem déedéet mënul nekk de dëgg su fen munoo jël éponge dugal ko ci siwo bisaa euh, lem hmm. wañ ko mu génnee sow munoo jël éponge dugal ko ci siwo ndox wañ ko mu génneel jus wala leneen léegi lan moo tax hmm. mooy éponge bi li ne lay génne léegi ngëm ci xol lay nekk hmm. léegi xol boobu li ne ci biir lay génne xam nga léegoo léegi nga dégg ko naan la man gëm naa yàlla xamoo lu nekk sama xol ñu ne la waa d'accord gëm nga yàlla xamoo lu ne xamuñu lu nekk sa xol mais xol du fen li ne ci xol mooy feeñ ci biti xol dafa mel ni éponge xol dafa mel ni ah, ah. éponge li ne ci biir soo ko wañee mooy génn léegi li ne ci biir xol bi moo génn ci biti ah, yenn góor gi dafa dugg oto toog benn benn waxambaane mu rastaw ay njañ takk ay jaaro nopp góor de takk ay lam takk ay chaîne euh, euh, kenn xamut mm-hmm. góor gi toog toog mënu ko muñ mu ne ko doom yow te ngaa góor góorlu sa njañ yeeg sa chaîne yi nga dindi ko mel ni jigéen mu ne ko père yàlla xol lay xol mu ne ko loolu ma tiital li ne ci xol bi dama xam ne xol bi bu ci jom ne woon ak ragal yàlla mu fas ko day feeñ ci biti li ne ci xol bi moom ma tiital loolu laa xam moo tax ma wax la ko loolu ma tiital moom laa xam moo tax ma wax la ko kon bëgg a làqatoo ci ne yàlla xol lay xool yàlla xol lay fay ngëm yàlla ci xol lay nekk xamalu nekk sama xol yitteewal sa bopp déedéet ngëm yàlla gi bu newee ci xol gi dafa war a feeñ ci bitti biti bi dafa war a sell ku la gën a baax biir uh-huh. gën laa baax biti uh-huh. loolu waxuñu ko de uh-huh. yonent bi moo ne ala wa inna fil jasadi mudgha isa saluhat saluhal jasadu kullu wa isa fasadat fasadal jasadu kullu am na ci yaram bi cër boo xam ne su sa sa biti baaxul nee na su bonee yaram bi yëppay bon léegi yow sa kaw gi bon nga bëgg na biir gi baax da ngay weddi waxu yonent bi alayhi salaatu mënul nekk kon ngëm gi li koy jëmbal dëgg-dëgg <coughs> mooy biir gi say sell ah, biti gi sell ngëm yàlla dafa am ay règlement yi muy àndal dafa am ay accompagnement yoo xam ne ñoo koy accompagner mënoo ne gëm naa yàlla ba pare débarrassé wu ci wañee da ngaa gëm yàlla mënta nekk kon bëgg a làqatoo ci ne eh, yàlla xol lay xool man gëm naa yàlla mm. eh, eh, xamoo lu nekk sama xol wax ju yàqu la kooku du lay bu dëgër ci diine mm. ngëm yàlla bi ne ci biir xol bi dafay reflété wu dafay feeñ ci biti comme misaal bi ma la jox ci wàllu éponge allahu akbar